Amen. xamante ne dafa xew benn bi xam naa ne la ñuy njëkk a lëñbët dalal ci ki nga xam ne moom moo di maître Abdoulaye baabu di nitu yoon dëkk ci dëkk bu sell bi di Touba di taalibe sëñ Bamba maître ñu ngi lay nuyu. waaw euh, maa ngi lay fay sëñ Mokhtar Sarr. Mm-hmm. gannaaw ba ñu la jaajëfalee tey jii man ak yow ak euh, auditeurs yi. Mm-hmm. man ak auditeurs yi ñoo ñoo yem ci li nga fas yéenee wax. Mm-hmm. moo tax laaj bi dama naan lan moo la indi woon Walfadjri tey. voilà li ma indi Walfadjri. Eh, événement la té daf ko jaar man foog na ni lu ñu mën jëf dégg ci lu aju ci Touba lu aju ci Serigne Touba muy lo xamni lu ñu la té légui la am ci tribunalu ndiarém lo li soo am ci nakar war nga li julit yépp te li ñuy wax amna solo bu baaxa baaxa baaxa baax ci suñu kaddu nak ñun lañu ñoo passé deug la wante ni ñi dundé sëñ Touba xam nañ ko suñ ci gisé lo xam nit yëkëti na kaddu wax ci lo xam du wax ju wóor ma ndax taalibe laa tey jii soo gisee maa ngi ànd ak ay nit ñu yiw ñoom laa nekkaloo woon ci tribunalu Diourbel mhm. mu sax may dugg ci affaire bi ndax loolu affaire tribunal la mhm. mais daal comme ni ngeen ko xamee su ñu demee tribunal ki ñuy woo day taxaw ak ay seedeem kii nga xam ni mooy waxal askan wi ñu tuddee ko procureur day toog am kàddu ci wax ji ak kii àtte tey li yàlla def ba ma yeewoo suba dem tribunal ànd ak sama client ba ñu commencé liggéey bi mbirum suuf la du ma rentrer même dans les détails mbirum suuf la wante euh, procureur bi bi monté tey mi ngi tudd dinaa wax turam ba ñëpp xam ko mi ngi tudd Seydou Diao Seydou Diao woowu di procureur moo wax ci làmmiñam ay kàddu yoo xam ni du man de maa koy nettali lu ñàkk teggin. jëmale ko ci kan. jëmale ko ci sëñ Touba. Ah ah, loolu ma tax a ñëw déglul nee naa la loolu kàddu yooyu duma ci jaaral mukk ndax ay kaddu yoo xam ni loo xam ni daal moom naqari naa nettali bi mu ko defee ci biir kii bi seede yaa ngi nii ñett laa àndal ñëw man maa jub ni ko hé procureur junga waroo waxee noonu jëmale ci Serigne Touba ñi ma àndal gi toog xam nga lu mu waxa ah? maa tey la ma waxoon lay waxaat. Ah, <coughs> ah bon ba ngeen déglu laaj waa tribunal la ma waxoon laay waxaat. waaw mbir ma moom lu ci yoonu sëñ Touba euh, Mehmet bàyyi rek du ma rentrer dans les détails du ay wax ju teggindiwul laa bëgg a may ma yem ci kaddu yi. Mhm, d'accord bi mu defee loolu procureur Diaw Diawo Seydou Diawo def ko. man ma jóg ni ko ni nga waxe ci serigne touba du wax yu and ak teggin lam ma ca tegal ñi ma andal la ñuy toog li ma wax mako wax te duma ci dindi ni tarafatal ay ni moko wax sal baa ngi dem man fogo nal sax day wax ni ma ju maître jéggal ma su kiwlu mais lam wax ni mako wax mako tay duma ci weddi ni tal ay ni ah man nak ci la do ma bayyi biru avocat ba fe talu bi taxaw ma ni ci sal bi ni yeen wa keur seigne Touba yeen deug ki limu wax cede yaagi ni nit ñi commencé di daanu nit ñi commencé nañ di daanu ci biir salle bi nit ñi commencé ni di daanu laa la wax ndax wax ju ñaaw ci biir salle bi bi loolu amee nag le président bi daal di jóg ah mhm. ni dañuy làq procureur boobu xam nga nu mujjee dañ koo génnee dem làqi ko hmm? dañ koo génnee dem làqi ko pour ñu bañ a dal ci koom mais lii arrivé day mel ni tey waa yi dafa xabtalu man loolu laa koy mën a wax ndax ba muy commencé président bi d'abord dañoo euh, nangul la li nga ne pas ko ci ku tedd ki mais nous dañu xam lan lañ doon àtte dama dégg nga wax affaire suuf loolu dañoo bëgg nga leeralal li doon mais nag lu ma jaar tam ci kii bi xam nga day am confidentialité. Mhm. ñii ngi nii client yi laa taxawaloon. Mhm. moo tax ba ñu jógee tribunal dama ni leen bu leen dem. Mhm. nañu dem ñun ñëpp Touba. ndax seede am. kaddu gi man yoruma ko. murit dafa discipliné. yoon wi am na njiit muy xalif général kon nag nañ leen jubal Touba. yàlla def ci yoon wi lañ ñu wax ni actuellement xalif bi ma nga euh, Dakar je crois. Mhm. mais ci fi sëñ bi nekkul aussi ay ay ay kilifa ngi fi ay borom yu baata ngi fi. Mhm. kon nag yéen sax ma gërëm leen pour mën a jàllale wax ji. Mhm. wax ji mooy tey jii ci tribunalu Njaareem. procureur Diawo Seydou Diawo. génne na fa ay kaddu yoo xam ni tegginuwul jëmale ko ci biir sëñ tubaab loolu nag la ñu mënul nangu loolu murit du ko nangu waaw mais mais maître procès bi euh, dafa laal njabootu sëriñ bi euh, wala ndax ndax lu njabootu sëriñ bi kon lu kon lu ci duggal sëriñ lu ko ci lu ko ci duggal lañ bëgg xam kay loolu mhm.

mi ngi tudd ma répété waat ko ba ñëpp xam ko Seydou Diaw. Mhm. moom ci làmmiñam moo génne ay kàddu mhm. yoo xam ni tegginuwul mhm. rafetul kenn du ko nettali jëmale ko ci sëñ Tuba loolu la léegi sa client yi niñ mujjee dañ leen a wala audience ba yem fa ba yem bi procureur bi waxee li muy wax wax ju yo, yooyu man maa jóg ni ko juum nga waroo waxi sëñ tuubaa ci nii lum ci loolu man foogoon naa ni day wax sax dama juum nga baal ma parce que du wolof da ko gën a dëgëralaat ñii ni maa ko wax la ma waxoon duma ko bàyyi ca laa jóge man mi Abdoulaye babu tourné ci salle bi ni dégg ngeen kii li wax ki sëñ Touba ku ciy taalibe sëñ Tuubaa na nga jóg hmm. booba nag. président bi jël sa client kan moo ko porté woon plainte. non mutu ko non c' est pas ça qui est important. moom bëggul dugg dans les ci procès bi bëggatul dugg ci procès. ca la tournée ni salle bi ku fi taalibe sëñ Tuubaa jógal. ba nit ñi jógee moom ñu jël ko dem làqi ko ah après nag la ñu arrêté audience bi. Hmm. fa jógee. wo ñi ma andal ni leen ñew leen nañ ko yëk yow daam lo ci nak daam lo ci nam ma def yow da daam lo ci nam ma def yow def fim nek ni lima ci fasee di def moy li ben man taalu bi laa taalu bi wax ji taalu ko wax wante ñaan nañu mu ag ba kilifa gu magga du deug ku ñuy yëf khalif général des mouride sëñ Mountakha. Mhm. moo ñu yële. Mhm. lolo walu taalibe bébé la. mais amna aussi aussi lu may def walu avocat. voilà walu avocat. lolo la mokol, def na ko 36 ans. Mhm. wax na ko sax fële njaareem. dina bind président de la république Macky Sall. du dëgg ah. moy njitu magistrat yëpp. ben bopp.

il ne mérite pas d'être sanctionné. mais tey est-ce que en tant que yoon it parewuloo pour lëkkaloo yenn kuréel yi nga xam ne dañuy défendre mbirum Serigne Touba ku ci mel ni ay xuddaamul xadim ak yooyu ngeen yóbbu mbir yi ci yoon fa ma xam a doone benn. ma ni li wóor ba wóor. Mhm. dinaa ko wax ba ñépp dégg. Mhm. ba ñépp dégg. Mhm. nii lii am na benn procureur wax na ko teg ko ci Serigne Touba. d'accord naa pour ànd ak ku bëgg. ñu xeex ko. dëgg la ku bëgg a ànd ñu xeex loolu. injustice yooyu. fii ci Sénégal. nit demee ñime ñime ñime ba jël kàddoom wax lu ñàkk teggin jëmale ko ci sëñ Touba. noonu rek la demee ndax li mu wax ñun dañ ko fekke ñun fa la ñu lépp fa la ñu fekk euh, bi président bi wax laajee li muy laaj ba noppi procureur bi laaj. li mu doon laaj ci boobu ci diggante boobu sax moom président bi xaw nañ cee. Euh, sent ci kaddu. ba mu nekkul li projet bi yow ci yow la woon wala. waaw. Hmm? waaw waaw euh, mu yëgte kaddu yi mu yëgte nag ki la ko maître Babou ne ko li nga wax waru ko woon wax maître Babou ne ko li nga wax waru ko woon wax mu ne moom mu insisté ci ak moom mu insisté nag ah ci la wax ci la wax ji jóg président rek ñu mu àndal ñoom jëm jël. procureur bi saal bet yooxu yi nit ñi daanu jël ci kàddu yooyu daanu jël fala audience ba audience ba ay ni mu ko waxee noonu la demee hmm. waaw mbaa amul mbaa amul yàq amul dara ci saal bi ah daal di jëriñu fa yàq dara ñaar fa doon yuuxu rek di daanu jël parce que kàddu yu mu dégg ñuy dégg xëy na. Hmm. waaw kàddu yi ñuy dégg neexu leen léegi bi ñu yuuxoo nag ci la audience ci lañ euh, président beeg ña fa toogoon ñoom jël euh, pëlëkëlër te bokk ci biir. waaw hmm. te fa la audience ñoom daal. Mhm. jërëjëf hmm, loolu yow kon fi mu ne yow mën nga ñu leeral dara ci audience bi wala yéen waaw waaw man buñ ko rawalu toon murid ci kawam lañuy dal ndax ba ko maître maître Babou taxawee na ko da nga koy da nga koy da nga koy baam da nga li nga wax du ko da ciy dellu ba faw te kenn mënu tee wax te sëñ bi loolu bari na ci yoonu murid fi ne ñu ngi bëgg a rey fi ni benn murid wala benn taalibe mënut a layoo ci benn magistrat ci ci ci benn euh, pëlëkëla wala kenn lii nag ñun ñi ñëpp fa la ñu fekk te bu doon nag bu doon suñ maître bu doon nag maître boobu mii ñu àndal dañ fa def jëneen jëye ndax jëmmi foofa moom kenn du mayuñu kenn kuy wax ci Serigne Touba ndax diggante atte ñaari nit ku dëkk tuubaa rek dëkk na tuubaa rek taxut mu wax ci Serigne Touba lu ñaaw man lu mën a ñàkk la lu ñu metti la lu ñu naqari la lii nag bu buñ ci buñ ci mënut a wax moom danañ fexe di xajal neneen lu dénku ci ndigal ndax fi ne ndigal moo ñu tax fi ne defuñu la ñu war a def waaye la mu wax sëriñ ba mett nañu naqari nañu ba ci kanamu yàlla duñ ko baal te ko bàyyi waaw donc ñi fekkee woon mbir mi rek dañuy jëlaat. Euh, ay euh, témoins la ñii yoo xam ne waaw sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax di leen balaax di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha suñu borom yàggal ko fi loolu tamit ànd ak wér ak kattan. Mm. barke xasida li li ñu ko wax lépp kàddu gi genn la. Euh, bi affaire bi tàmbalee <clears throat> ba laaj yi am procureur laaj ki mu doon laaj muy wax mu poussé ko. bi ñu koy poussé nag ba wax ji sori mu wax wax joo xamante ne naka su dul la euh, président bi artu na ko lu ko président bi artoo taxul mu arrêté ci la maître Babou jóg nag mu wax ci Sëñ Tuubaa loo xam ne naka su noon la la maître Babou encore une fois mu artu ko moom tamit.